yaa ngeen jëf mbokk téléspectateurs yi suivre seen site internet bi di murit point info comme ni leen ko waxee woon nag ba léegi yéen ngi seen biir émission koor gi ak Ndeye Thiam Saliou tey nag maa ngi doxantu ba fii nga xamante ni si moo di Kër Serigne Souhaïbou bu Mbàkke sama te tey kenn dootu ko naatable bokk ci euh, coalition Madické 2019 balaa ñuy xuuse dañuy bàyyi mu présenté wu ak mbokku téléspectateurs yi koy seetaan sëñ bi bismillahi min satan rajim bismillahi rahmani rahim bi jaal asim hindallahi adlum hismatan min al afwahi yaa ba nag fi ne asa lisaani wala xañ ne wu jënatoo saytaane bokk jullit bokk taalibe ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen sant di leen gërëm di nuyu Cheikh Mamadou Mountakha xalif central di murid yàlla di ñaan yàlla yàlla yàggal ko fi te ko fi ak mboolem taalibe yi di nuyu jullit ñëpp di bal jullit ñëpp ci koor gi di nuyu waa Mouride Info di leen sant den leen gërëm di gis taxawaay yu yi di leen ci sant di gërëm di leen encouragé jërëjëf jëf sëriñ Souhaïbou ci présentation boobu am na solo torop ah, ah ñu ngi ci weeru màgg nag ramadan mubarak la ñu wax weeru ngëneel weer wi nga xamante ni si weeru jéggale la weeru jëllale la ah, sëñ sëñ bi mën nañ xam ba xam naka ngay dundee koor gi fii en tant que kilifa ba pare di responsable. ni ko ni ko jullit yëpp di dunde mu doon mbir moo xam ne si ndigal la loo xam ne si bépp jullit boo xam ne si yaa ngi jëfandikoo li nga li sa pas-pas ne ab jullit nga bu weer wi aksee ni ngay dundee weeru koor noonu lañ koy dundee comme ñëpp am pas-pas bu weer wi agsee ñu def waajtaay yi ñu war a def yëpp ci lépp laaj ci yëg-yëg di ko dundal ci ni nga xam ne moom la sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul bëggee woon ñu dundale ko noonu ndax sëriñ Tuubaa dafa doonoon koo xam ne weer wi daf koo ñoroon lool ba tax na ci fànn yëpp la ko daan waajale li ko ci ëppaloon solo nag mooy jàng alxuraan ak di ko nafar ñun loolu lañ def muy suñ yitte amuñ jenn yitte jurut bu weer wi ñu jàng alxuraan ak lépp loo xam ne si ci wàllu social luy dimbale doomu aadama yi ñu nekk ci niñ ci war a nekk waaye lu dul loolu amuñ ci benn yitte suñu activité politique yi sax xañ na koor gi dafa doon loo xam ne si ni nit ñi di def léegi mooy toujours dañuy def ay activité social waaye ñun liñ gën a concentré wu mooy dafa am loo xam ne ci lañ ñu tàggat yar ñu ci muy suñ culture loolu rek lañu xam suñu waajur xam ko ñu yar ñu ci nàmpatal ñu ci loolu mooy doon suñu yitte ci koor gi mooy tàmbalee ci alxuraan yem ci alxuraan. tàmbalee ci alxuraan yem ci alxuraan. Mhm. yooyu leeral am na solo torop ndax mën naa xam tamit euh, comme que ñu ngi ci weeru koor bu waxtu julli jotee jumaa ji la gën a jege ngay dem julli wala da toog fii ci kër gi jiite njaboot damay toog fii ci kër gi nag di ànd ndoog njaboot gi di jullee ndoog ñoom di ànd ndoog ñoom di leen tàggat ci li nga xam ne moom lañ ma tàggat man ndax ab julli li ëpp solo mooy waxtu yi nga xam ne mooy waxtu yi farata yi man ngay dem di ko di ko dundale ci jumaa yi ak jàkka yi ndax loolu lañ sant bépp jullit waaye nag koor dafa doon loo xam ne si lu ñuy préparé wu la lu ñuy waajale sax njaboot la man sama xale yi ndaw yi nekk fii pour ñi nga xam ne ay quatre ans lañ am gone yëpp dañuy woor loolu nag bu fekkee ne nàmpataloo leen ci mënuñ ko te it dafa am noo leen di wone bañ xam ne ñoom lii dafa doon loo xam ne pas-pas la te dañ koo war a def buñ gisee ci sa environnement luy tax duñ ko def rek duñ ko def looloo tax buñ xëyee ci njàngum alxuraan lañuy nekk bu guddi gi jote ba jant soo buñ dogee def yu wooye fi ñu war a def ba noppi roy won leen li ñu war a roy ci seeni waajur comme niñ ko gisee woon ci suñu jur ñun mooy toog julli julli gee jël njaboot gi boole leen ñu ànd naafi la ci seeni waajur ñoom ñëpp ñu bokkandoo ndax environnement dafa am solo ci doomu aadama ndax bu fekkee ne nit ki da nga am loo xam da nga koo gëm muy sa pas-pas te doo ko pratiquer mukk sa njaboot di ko gis da nga dem ba soxla koo def ci sa njaboot te ñoom duñ xam nuñ koy defee même buñ ko dee def te soxalugu leen sax. jar na nga di ko def yow ci seen kanam ba ñoom ñoo xam ne lii nii lañ ko war a defee waxtu yi saabu jotee dañoo war a jóg def lii waxtu yu saabu saabuñ ci accès itam dañoo war a jóg dañoo war a def lii muy farata ci ñoom. ah jërëjëf sëriñ bi ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci yooyu leeral am na solo mbokk yi ñu leen di fàttali ba léegi yéen ngi seen biir émission koor gi ak Ndeye Thiam ni leen koy woyale ba léegi sama invité nag du ma toog moom ginnaaw gin nañ ci koor gi te dugguma ci li nga xamante ni si ci lay yëngatu muy langue politique gi sëñ Sohaybu bu lan moo la dugal si politique. Oh, ñun bu ñu dee wax li ñu dugal ci politique daanaka mooy mooy nit ku social nit koo xam ne da nga dund ci ay association di dem ci daayira yi di organiser nit ñi pour ñu mën a jëfandikoo collectif ay association lañ njëkk a yor di ci dox ba yàlla def ñuy def ay social ci biir dëkk bi yàlla def ñuy organiser wu di dem di dem xam nga euh, développement facteurs yëpp dañoo dañoo dañoo jaxasoo di ñuy wax développement mënoo ko def mukk di rëcc ci politique ndeysaan maa ngi fàttaliku ku fi masoon a nekk sous préfet bi bi ma njëkkee recevoir ma ma ma déposé ay préparé élection législative 2002 municipale 2002 daf ko jaaxal ndax daf ma xamoon ci wàllu organisation yi mais bi ma gisee dafa xam ne lii accident la ndeysaan mu wax ci wax yu am solo am lu ma ci lu ma ci lu ma ci tegtal ci laa xamee ne bari na lu nit di def ci wàllu organisation wàllu développement booy dugg ci politique nag doo ko yëg ci laa demee nag ba ay parti jël ma yaakaar ma ci département bi nga xam ne jàppoon nañ ne ñoom bu ñu àndut ak man duñ organi duñ duñ bokk ci local département Mbacké yàlla suturaal ma ci ma ma dugg ci. jàppale ko ci ba département bi fépp fu mu fi war a am représentant fu ko fu ñu ko fi war a représenté mu ko mu wutal ko fa ay représentant ci noonu nag ci laa duggee jóge fa boobu parti mi ngi doonoon parti bu ñuy wax PAS yaakaar naa doo ko xam ku ñuy wax Jibril Mbaye moo ko jiite woon yàlla def ma jóge ci jamono boobu la AFP di du juddu euh, ñu ñëw fi boole ma ak secrétaire général national de Alliance Force de Progrès muy Moustapha Niass ñu ànd ab diir ma gis ne moom ñim wékku di liggéey doonu ñoo xam ne si politique ñor na leen dañoo doon ñoo xam ne si rek dafa am lu tuuti lu ñuy lu ñuy dox ba far jël parti boobu di ci yëngu yàlla suturaal na ci laa dugge nag bu baax a baax nag ci politique structure ndaw ñi ba mboolem ku fi nekk ci ndaw ci département Mbacké jamono boobu ay 2001 2002 2003 ci lañ organisé. une structure locale conseil local de la SENES yëpp ñu organisé. ko organiser fi bu association qui a dafa santé wala éducation wala développement Nous dugg que le parti démocratique sénégalais xaw cee yëngu ba biñu nous dugg ci élection présidentielle yi lepp ci parti démocratique sénégal lañ nek di ci liggéey and ci secrétaire général national met ablay wad ay dugg sé rek lan mo la jëlé ci ablay wad indi la ci madi kenya wa xam nga parti démocratique Sénégal dañu ñun ñëpp dañu doon ñoo xam dañu gëm ne ay libéral lañ gëm ne dafa doon war doon parti bo xam ne si warut doon lo xam day day dem ba aksi fi mu aksi ñu diko doon ci liberté bi nga mom lañ jang ci parti bi. may nañu ñun ñu xool luñ jàpp da lu ñu amal njariñ la ñu def ko parti démocratique Sénégal lépp lu ci nit doon doon naa ko ci lu dul ñu jox ma poste nomination yi gën a fés yi mooy doon député wala doon ministre wala doon directeur lu ci nit di doon mën naa ko ci doon waaye man maa am méthode bu may liggéeyee loolu it yàlla def ma gis ko ci président bi di Kenya mu doon ku dal ku am sago doon koo xam si léppam ci Sëriñ Tuubaa la koy delloo ma gis ne nag comme parti bi ñun gëm nañ ne dañuy dem élection te secrétaire général national bi ni muy doxee ñun gis nañ ne ak Macky Sall mi mu jàkkaarloo du dem élection te ñun obligatoire liñ bëggoon mooy 2019 ñu jëlee fi président Macky Sall. bëggoon fee jëlee président Macky Sall moo tax nga jóge ci Ablaye Wade ñëw jàppale Madické Niang. maanaam du du kese jële fi Macky Sall mais gis ne président Madické Niang mën na yor réew mi gis ne nitu principe la te lu mu la wax mooy dëgg ci moom te du wor nit du jaay nit ndax defar rek moo ko tax a jóg lu baax moo ko tax a jóg soowee Sénégal moo ko tax a jóg sauver itam parti démocratique sénégalais moo ko tax a jóg loolu ay principe la yu clair yoo xam ne dem nañ ba jamono tontu ci ñi nga xam ne dañ doon wax ne lii ay du ay principe parce que nag fi ñu dañuy wut luy tax ñu am représentativité foofu noonu moment boobu àdduna bépp taxawoon nañ ne ñun lii amuñ ko dañu ko jox mais ñun ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci biir système bi xam li ñu ci doon daj ñun tax nañu xam ne ñun ay principe la ñuy demee. ñu naan euh, Madické Niang ak Ablaye Wade defuñu nenn. waa xam nga loolu buñ demee ba di ko wax rek. Mhm. am na lu tax ñu di ko wax. lan moo waral. waa xam nga loolu buñ demee ba di ko wax rek. amna na lu tax ñu di wax diabolisation moy système bu mu mën doon ci aduna dafa am ñuko ñuko ñu ko coiffé xam ne toujours amna luy créer wo lo xamné ci bu créer wo li mëna doon seen adversaire potentiel bo xamné liñ bëgg mëna ko mëna ko dindi lool nak mo andi ñom ñu xamné li ki mëna leen andil problème ñu andi xeetu diabolisation ci forme politique te lool nak moy responsable politique moy Euh, nitu état mm-hmm. état lañ am nañ doole xam nañ fi ñuy jaar ñu génne yooyu yëpp comme ay information mm-hmm. pour fas yéene sànq candidature président ma Niang. mais tamit. tamit mënu woon confirmer loolu parce que euh, durant campagne bi yëpp mosoo dégg Abdoulaye Wade tudd ma di Niang. waaw xam nga loolu moom. loolu moom ñun ñëpp Sénégal gépp loolu moom ñun ñëpp Sénégal gépp ñoo ci am déception ndax ñun gis nañ ne président Abdoulaye bi mu ñëwee Sénégal. action yi mu entamé woon ci ci ci njëlbeen gi yéen ñëpp yéen journalistes yi yéen ñu jox information yi ne président Abdoulaye Wade nee na day recevoir candidat yëpp mu ñëwee mu recevoir Sonko ñun ñëpp xam nañ ñu ñuy politique xam nañ ne recevoir wu doon Sonko pour pour soutenir ko te ko recevoir pour éliminer ko humilier ko noppi joxaat rendez-vous Sénégal euh, presse bi ne leen dinaa recevoir candidat yi ci des. yéen journaliste yi laay laaj ndax boobaak léegi gis ngeen candidat bu fi président président Abdoulaye Wade recevoir waaw léegi kon moom mi nga xam ne moo war a sauver destin wu Sénégalais yi bu demee mën a trahir loolu ñun ñi nga xam ne ñoo doon porté di xeexal président Abdoulaye du ñëw ci ëpp déception parce que ñun nag ay sénégalais lañ naam ay patriotes lañ mais nag président Abdoulaye Wade ci boppam duñ dem ba ànd ak moom ci loo xam ne xamuñ ko. parce que li ñu xamut woon mooy élection yu toll ni yii fi jàll di présidentiel Sénégal gépp gëm ne Macky Sall dafa war a jeexal ñu gis benn façon ab Abdoulaye Wade boo xam ne kenn mësu ko woon a sentir kon dana duñ am na loo xam ne ñun ñiy politique tey xalaat mën nañoo bañ a bett moo tax ñu teel a jël suñu responsabilité nag. bi tamit euh, élection yi passé présidentielle yi euh, Sénégal yépp japoné maître Madické Niang moy candidat mouriti yi bi élection yi jallé nak défaite bi nga xamanteni ci mom ngeen fi am fi ci diwan Touba ngeen jël fi 3e naka ngeen ko dundé lool euh, défaite bu bu yéme nga xané Sénégal gépp luñ gëmon la luñ xalaatoon la amul ben candidat ci Sénégal wala benn sénégalais boo xam ne biñ daataan ak élection yi gëm nga ne kenn mën naa gañe président Madické Niang Touba ñun ñi doon campagne ak ñi yàlla doon def ñuy jëflante ak ñoom loolu lañ doon gis mais nag doomu aadama bëgg la am yàlla mooy joxe ndam mooy sottal ci biir loolu itam gis nañ ne loolu li ma la doon wax léegi da cee dugg mooy dafa am ñoo xam ne gëm nañ ne maanaa bàyyi président Madické Niang à cent pour cent mu dem liggéey te amul lenn luñ ko diaboliser pert lay doon ci ñoom bu rëy loolu ba ci ñun suñ mbokki opposition yi ñun gis nañ ne ñun ñoom ñoom sax ñun lañ doon campagne pour ñu dem fenn taxawal benn benn mot bu baax boo xam ne dañ koy campagne amuñ ko dañuy dem rek taxaw ci mbooloo mi ne leen na xam ne ku wooteel ku bañ a woteel Macky Sall bul woteel Madické Niang xam nga li gën a garaaw mooy loolu yow nga nekk ci langue opposition sa morom nekk ci langue opposition. waaw nga taxaw di wax ne carrément yéen ñi nga xam ne da ngeen a war a war a woteel Macky képp ku ko woteel ku woteel Madické Niang rek Macky nga nga woteel léegi nag ñooñu moom àdduna tontu na leen ndax keroog bi ñu yendoo def élection yi ba ci guddi ñooñu ñëpp keroog la président Madické Niang jël aw yat dóor leen. ndax ay kàddu yu yu dëggu yu doon pas-pas yoo xam ne yam doon wax ci biir campagne taxaw maa ngi fàttaliku ndeysaan bi mu ciy mujj wax mi ngi taxaw ci Mbàkke Kajoor ci buntu barabu Cheikh Adama Guèye di ci wax wax ju am solo joo xam ne ci pas-pas ak xol la ko tibbee di wona ne bu ma naree dem li ma am ma di ci jàppale mag Sall wala may may def loo xam ne si du sama pas moo tax ma di ko def war naa mu di war naa Sëñ Tuubaa kon kooku ci pas-pas la ko te loolu ñëpp gis nañ ko yàlla yàlla mi nga xam ne nag mooy nit dëgg moom rek moo fi teg loo xam ne si lu ko soob lay doon indi na tey ba tey yàlla def na sutura quatre candidats yi doon dem juróomi réunion wala ñeent ñoo yi ñu nii yëpp kër président Madické lañ ko defee kon ku doon wax ne diw lay liggéeyal ku ne amut gëm-gëm ci lim nekk ku ne juum nga te njuumte loolu kenn tegule ko kudut daanaka li ci ëpp sax ay diabolisation yi ñu doon doon def ci biir campagne bi rek Mhm. ñu gis ni que campagne bi mu euh, bi muy egsee nii euh, est-ce que li ngeen doon campagne campagne ngeen campagne boo nga xamante ne tax na nit ñi topp ci seen ginnaaw wala nit ñi demoon nañ ba benn moment affaire comédie rek lañ leen jàppee woon fu ngeen jaar toj farajax ndax li ngeen tojoon lépp tabax ngeen ko. waa xam nga xam nga xam nga Sénégal dafa dafa nekkoon foo xam ne si bépp sénégalais wala bépp si boo xam ne yaa ngi doon topp candidat yi dem nga ba gis ne Sénégal mi ci enjeu. parce que campagne bi dafa tàmbale ak ak tiitaange ak njàqare ñëpp am tiitaange gëm ne ci biir campagne bi réew mi dana ci tàkk loolu nag yàlla mi nga xam ne mooy suturaal doomu aadama yi mooy suturaal am réew jaarale ko ci président Madické Niang candidat boo xam ne si yaa ngi doon campagne sa xol di am njàqare sax président Madické Niang dafa ñëw wuññi sa njàqare reeloo la woon la ne la fii nga nekk da nga fay war a jóge esprit bi nga am nii danga nga fay war a jóge nekkaat ci esprit jàmm nga xam ne bi mu tàmbalee di wax wax yooyu ci lañ gis bépp benn benn ci ngeen tàmbali di dégg déggatu leen benn kàndaa boo xam ne mi ngi nekk ci biir terrain bi di gaaruwaale moroom wala mu di ko wax naka suutu noonu kon kon kooku defal na Sénégal loo xam ne si tey yàlla fay na ko ko ndax li tax yàlla fay na ko tey bu fekkoon ne indiwut jàmm ci ci enjeu bi jàmm jooju mu ci la ko yàlla indil ba defal ko ci loo xam ne si tey bu duggul woon ci langue politique gi ne day laaj réew mi du ko am ndax ci la njëkk dégg a déggee xalif général di murit Cheikh Mamadou Muntaxa yàlla na ko yàlla dolli kattan dëbb ko xéewal ak tawfeex ba li mu bëgg liggéey Sëriñ Tuubaa mu def ko mu yëkkati baat yoo xam ne si tey bu président Madické Niang doonu woon candidat dem ci campagne ba ba ñàkk am dara du ko am bu gañe réew mi sax baat yi mu am du ko am ndax ñun ñëpp. ñun ñi nga xam ne ci mu gi lañ judd suñu nday juddu ci suñuy maam juddu ci buñ sañoon dégg li président ma dikka ñaa dégg yéen journaliste yi bu ngeen sañoon dégg ko kon nag tey bu gañee woon réew mi du dégg baat yooyu waaye nag li nga wax léegi ci sa biir wax moo moo moo indiwaat yëf yooyu tey dëgëral ko ba tey Cheikh Mamadou Mountakha bi muy wax keroog àll la waxe yëg-yëg la waxe ndax ku ne miin na kàddu sëñ Mountakha waaye miine su ko magum jëm mu toll ne du Mamadou taxaa di wax bay giñ billaahi wallaahi wallaahi loola lum jàpp ci xolam la lu jóge ci xolam la moo tax xol ki taxoon muy wax génnee ronkoñ firnde ne lii ñuy wax yéeg naa ko kon euh, loolu du déception li muy indi rek mooy man li may won wax rek waa mooy suñu wat ñun waa Touba ñun murid yi mm-hmm. wala ñun waa dañoo war a identifier suñ électorat parce que nag bu ñu demee bay voté vote boo xam ne si ki ñu koy jox sax amul lu lum ñu defar lu tax ñuy wax kon jox ko ki ki nga xam ne yor na raay euh, yor na réew mi mu mën a sukkandiku ci loolu defal ñu def sax moo ko gën li ma d'accordul mooy ñun ñuy woote te identifié wuñu jàpp ne woote parce que fii yaa ngi jël sa électorat di ko jox koo xam si xamuñ bu tax nga di ko jox loolu. kenn mënu koo tekki. bo ci yooyu leeral am na solo torop ah, ci macha allah ci émission beeg dalal gi ñu ngi lay ñaan sa kàddu tàggatoo. di sant di sant sénégalais yi nga xam ne ñoo ñu doon déglu di leen baalu ak ci koor gi te leen baal di ñaan yàlla li nga xam ne moom la yàlla digle bañ am pas-pasu def ko ak yéene def ko. lépp lu ñu ci yàlla dëxal yàlla nañu ci ci yàlla yàlla nañu ko yàlla jox te wàcce jàmm ci réewum Sénégal wàcce fi kaaraange suturaal doomu aadama yi ci seen yéene li ma bëgg a gën a mujj rek mooy Sénégal ñi ko yor rawatina ki ko yor fi toll nii na xam ne ak njàmbaaram joxu ko réew mi man-manam joxu ko réew mi ab juddu joxu ko réew mi tey nag mi ngi sonal sénégalais yi ndax lépp loo xam ne si luy tax sénégalais yi woyof luy tax sénégalais yi xam ne ñi ngi ci mbetteel ak yaakaar ju tas lépp luy indi loolu rek moom actuellement mi ngi koy def waaw ci biir loolu nag ñu di ko xamal ne na xam ne ak lu man di xew bis ba muy def passation de service moom taxaw di waat di wane nii la bëgg yore réew mi na fàttali ko Omar El Bachir bi nga xam ne bis boobu moo ci doon wàcc te toog na ci réew ma ñaar fukki at ak juróom nàngam yaakaar naa te bi bisu wàcc jotee dafa wàcc kon na bàyyi xel ne sénégalais yi ko jox réew mi buñ ko gën a gore wone na nag loo xam ne ak ngoree dee ko gën a woyof sax ci élection présidentielle yi ñu weesu waaye maa ngi koy ñaan bi ko Sénégalais yi topput ci loolu bam foqar ci réew mi yor ko bu jeexalee cinq ans na may jàmm réew mi ci sabab yi nga xam ne moom la chef d'état war a def ba réew mi doxa fa am jàmm waaye bu mu fa dugal réew mi ci guuta bu ngeen déggee ñu di ko wax nag am nañu ñaaw njort ci yu bari ndax xam nañ ko xam nañ leen ñoom ci seen bëgg pouvoir ak seen bëgg daraja te loolu day taalum réew te gis naa ne waxuma la moom sax mais sous région bi rek bari na fi ñu mu bokkal ñoo xam ne si ñu ngi préparé seen i troisième loolu nag yàlla nañu ci yàlla musal ñun. est-ce mais mais loolu décret da koo da koo da koo dindi hmm. décret da koo dindi même bu liggéeyoon ba réew def réew mi lépp muy or dafa war a jox kaneen daa war a daa war a puus jox kaneen mu gouverner bu ëllëgee nag bu dee ñëwaat Sénégal di ko yaakaaraat di ko tegaat. Hmm. bu loolu jàllee maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen encouragé di leen xamal ne man dama gëm ndaw loo xam ne si day liggéey yéen yor benn organe ak organe yi ni mu baree ci réew mi te ma ma xam yéen fi ngeen jóge sëriñ bi ngeen àndal ma ma xam fi mu jógee xam waajtaayam ci yu bari ma leen encouragé di leen ñaanal. leen ñaan ngeen gën a gëm seen bopp bu leen bu leen bu yéem seen bopp ci dara bu leen jàmmale seen bopp dara ndax doomaatam aadama bu mën doon lu mu noppi rek yàlla noppi na ci fépp fu ngeen bëgg a àgg ci liggéey yàlla yóbbu leen fi dara ji Sëriñ Tuubaa lépp lu ngeen bëgg def ngeen def ko ci kaw nag bu ngeen jàmmalewul seen bopp dara ndax man loolu laa gëm ñu ngi leen di sant leen gërëm di sant itam nag maa ngi jégalu di sant mbooleem. coalition Madické 2019 département Mbacké particulièrement région de Diourbel parce que lépp lu waroon a def def nañ ko di sant ndaw ñi di sant góor ñi di sant jigéen ñi leen xamal ne président Madické mi ngi seen kanam tey mu ngi seen ginnaaw ginnaaw suba lépp loo xam ne si war na ko def dana ko def ñu ànd liggéey ba jële fi xale bu góor bu ñàkk jom bi ñoo toog liggéey Sëriñ waa liggéey réew jërëgéen jëf maaleykum salaam wa rahmatullahi taala jërëjëf bu Mbacke xam naa ni message boo nga xamante ni si moom nga lancé président Macky Sall dina ci jot <laughs> yow tamit ñu ngi lay remercier bu baax a baax a baax waa Mouride Info ñu ngi lay jaajëfal ndax ah, yombal nga ñu ko ubbil nga ñu yaatal nga ñu tamit dalal nga ñu macha allah ah, ci bi nga xamante ni si sekk nañ ko yow nii ñu ngi la ciy jaajëfal bu baax di la remercier bu baax a baax mbokk yi noonu ngeen koy àndee ki nga xamante ni si mooy Ndeye Thiam Saliou nii la leen koy àndee ak saa su nekk fii ci seen biir émission koor gi ak Ndeye Thiam Saliou tey nag mënumaa bañ a remercier moom sama équipe technique bi nga xamante ni si toujours ñoo ci sama ginnaaw su ma melee nii c'est grâce à ñoom kii di nga xamante ni si moo di DG Serigne Mbacke Dieng su ma toogee tey ba yor micro c'est grâce à moom na ci man si ñu ah moo di Khadim Diouf ñu naan ko Alliance Bostu ak sama chauffeur bi nga xamante ni si marché sax su ma fay dem moo may yóbbu dëgg neexul Khadim bu baax a baax a baax di leen jox dig daje suba ci beneen invité incha allahu rabbi jaa ngeen jëf mbokk